mesdames messieurs bonjour chers internautes Kéwoulo TV Nous sommes ici, comme nous ngeen ko nous, nous place de l'indépendance place de l'indépendance lu waral suñu fini. aujourd'hui c'est le samedi 5 octobre 2022 Nous avons fait un bu collectif pour la libération des prisonniers politiques lancé nous xamante ni mooy COLIDEP avons annoncé ni tey dinañ fi def sitting annoncé nañu ay manifestation yoo xamante ni bëri na manifestation yooyu noonu am nañ lu ñu defoon fële muy place de l'obélisque ginnaaw place de l'obélisque tay waxon nañ annoncé wu nañ beneen marche bo xamanteni ni waroon na quitter boo xamante ni moom université Cheikh Anta Diop de Dakar terminé rond-point euh rond-point poste Médine tey annoncé beneen manifestation fi la place de l'indépendance. place de l'indépendance, indépendance nag bu avec gis euh, la présence policière loo xamante ni comme li ngeen gisee dispositif na pratiquement le même scénario euh, de mort ñu ñëwee gis nga ici tout a été encore barricadé par les policiers les pick-up mën nga nous sommes déjà internationaliste un def nous xamante ne maintenant rotation pour faire euh, la situation le scénario est-ce que nous avons maintenant des manifestants, les manifestants ñi annoncé woon manifestations manifestations. fii si place de eh, place de l'indépendance dinañ réussir a def loo xamante ni moom mooy manifestation boobu la mais en attendant foo xamante ni moom mooy fii si place de l'indépendance boo jëlee ni quatre coins gis ngeen ni policier pratiquement partout euh, seen i camion fépp lañ ko euh, placé ginnaaw camion yooyu nag seen i éléments yi bëri nañ fii dañuy taxaw en position si nuñ luñ ko comme ñu ko waxee na en position de binôme ay deux personnes deux policiers tek mais am na foo xamante ni mën nga compter ba six personnes six policiers xamante ni dañuy dañuy taxaw si yenn parti maanaam manifestants yi nag euh, bon bu ñuy bañ a duggee si ñoom nag ñoom nag pour le moment gisaguñu leen euh, à l'œil nu euh, si place de l'indépendance bi mais jamono ji nak dañuy xaarandi ndax manifestation fi ba euh, ay dañ euh, ko mën démarrer mais même même la police la gendarmerie aussi est en train de faire la petite rotation comme vous le voyez à travers les images donc situation bi nak euh, madame messieurs ñi ngi nous ginnaaw loo xamante collectif pour la libération des détenus politiques COLIDEP annoncé seen manifestation ñoom membre yooyu ñu ne bokk na si Clédor Sène bokk euh, Dame Mbodj bokk nag ñi nga xamante ne certains membres du collectif frappe France Dégage niom niom ñaanal libération ñi nga niom niom les euh, détenus politiques niom les leen qualifié les détenus politiques détenus politiques yooyu na nag boo ko xayma mooy euh, Cheikh Omar Diagne beaucoup na ci kii Abdou Karim Ndiaye pour xaax beaucoup na ci bokk na ci ki nga xamante ne le coordonnateur de la mafia kàcc kàcc Ousmane Diagne beaucoup na ci tamit kii Papito Kara nekkoon journaliste si euh, site euh, d'information leral.net point net situation bi voilà ah, ah, voilà. पाकिस्तानी डिक्टेटर voilà আমরা নিয়ে যাব Thank you. dalul la dalul dalul ñëpp ci noonu. voilà gis ngeen voilà gis ngeen ne du ñu du ñu bu mag. c'est bon c'est bon c'est bon. waaw dem leen dem leen dem leen. du ñu bu mag gis ngeen. du ñu du ñu du ñu bu mag ñoom policiers yi am nañ bi ñuy jot a jàpp ba pare ah du ñu bu mag bu baax a baax nañ bañ leen. jël image yooyu waaye nag comme ñoom dañuy def voilà.

bu ma daanoon bu ma daanoon ba léegi gis nga benn policier boo xamante ne ñëw na wala benn taxawaay boo xamante ne ñëw na pour xool état de santé. waaw Saña. Rest, rest. Ndox ndox ndox voilà la la la chaîne est devenue indescriptible policier ñoom ñoo finalement euh, lu ñu doon jàppante ak euh, euh, lu ñu doon jàpp manifestant yi mujj nañu bu mag kenn su ñun. bi nga xamante finalement fofu dafa mujjé daanu pour le moment nak elle est euh, inconsciente nak ñom policier nak ñoo doon buma parce que lan mo indi bu mag euh, bu xanté bobu diggante policier ak euh, journaliste ñom ñoom policier ñeneen ñi di ñu naan pour ñu def benen côté si la ñeneen policier ñoo bu mag ko ba mu daanu policier ñoo ko bu mag ba mu daanu voilà ñoom policier ñoo ko bu mag ba mu daanu pour le moment elle est en état d'inconscience voilà suñu confrère nekk cadreur de Dakar Buzz policier ñoo ko bu mag ba mu daanu nii voilà voilà sommes policiers yi parce que non seulement nous... voilà nous sommes policiers nous, ko bu voilà finalement nag ki moo ko voilà voilà ñoo bu man ñu ñu ngi en fait lii moo amul benn sens parce que policiers yi di naan journalistes yi taxul leen benn sens ñoom ñu def dugal def policiers yi euh, voilà maintenant euh, elle est consciente maintenant nous constatons qu'elle est la situation en li ngeen di def moo nekkul xaaral ma simili waaw def moo amul sens yéen mënoo leen taxaw fee di. ah non ma jox bàyyi ma simina ba pare. ah. xaw ma seen commerçant mënoo leen fi nekk yéen ku nekk bëgg a décider awal leen nii awal leen ne ngeen bu max nit ñi ba ñu daan c'est pas possible não na naman tayo mga may tayo Thank you.

ñëw na moom ak ñaari élément am ñëw na ak ñaari élément am boobu nga gisee nii waaw mais kon loolu dañu nekk yoon it daf leen seen daf leen seen côté daf leen seen côté waaw loolu jàpp nañu tamit. jàpp nañu ne nañu tamit voilà kii la ñu Ismaila Goudiaby bi Goudiaby la ñu jàpp noonu Ismaila Goudiaby Ismaila Goudiaby la ñu jàpp noonu Ismaila Goudiaby la ñu jàpp noonu voilà voilà euh, kii euh, mu ngi ñoom policiers yi policiers yi encore sànq ñu ñu leen doon wax ni ba maax nañu fi nga xamante suñu suñu arrêtez de perturber la circulation Vous laissez ici, on voulait faire votre travail, mais vous restez ici. Vous n'avez pas plus de travail, vous n'avez pas plus de droit. Ceux qui sont là en train de rouler. Vous laissez ici et vous nous faites tout, mais pas là, tout là. La dernière fois, vous allez La prochaine fois, je vous allez sur votre matériel Voilà. Alors, euh, la situation est devenue, la scène devient de plus en plus indescriptible. Les policiers, nous. finalement lu ñu mujjee dañuy obligé di dem nii euh, du continuer manifestation yi nga xamante ni euh, ñu ngi ñëw fii nii saa bu ñu jëlee taxi wàcc rek dañuy daal di euh, daw si nga xamante ni moom mooy rond point bu nekk place de l'indépendance mais saa bu ñu nar a dem rek foo xamante ni takkadeer yi bëri nañ ko trop si saa si la ñu leen di arrêté ñoom ñëpp pratiquement ñoom ñëpp jàpp nañu leen ñoo xamante ni ñëw nañ jot na kii ki ñu mujjee identifié ko mooy Ismaila Goudiaby moom mooy jàpp nañ ko léegi nii moom moom sax jotoon nañ ko japp ci mbirum force spéciale mais finalement dañ koo bàyyi tey euh, bu mu ñëwé tamit euh, dafa wacc ci taxi bi rek mu daw ci dem ci rond point bi ci lañ ko arrêté maintenant euh, lo xamanteni ni mën nañ ko ñaawlu moy mooy le comportement des policiers ñu xamanteni ni xammeetuñu kuy journaliste ñëpp lañuy bu max voilà ñëpp lañuy bu max ci place de l'indépendance bi ba taxna

Thank you. boo xamante ne moom lañ defal journaliste yi pour que ñu développé mais moo inta interview. mais Cheikh fële na ñu mën a Cheikh boo ko mënee tamit. buñ leen ñu taw fee moom ah. xanaa loolu moo léegi daf leen ngeen ñu mais ñu ne nii. boo taw. chef fii nga c'est bon fii la ñu wax ñu ñëw. dem leen jël jël jël. reculer. jël bagage bi dem. léegi nañu dem fi ñu war a reculer oh. sa film bi nga may nga may jël affaire bi si ginnaaw sama paano waay yow. may filmer. C'est bon, C'est bon C'est bon, c'est bon. c'est bon. Thank you.

Bangladeshi ভাষা ভাষা manifestación Thank you.

<laughs> alors chers euh, internautes ñu ngi leen nuyu bu baax baax pour ñu xamanteni ni ñu ngi ñuy doog suivre ñu ngi fi en direct euh, place de l'Indépendance indépendance euh, appel au citoyen pour nga collectif euh, pour la libération des détenus politiques defoon na déclaration bobu depuis lors ñu ngi woon fii dix heures la ñu woote woon dañoo xaarandi ba ay onze heures pratiquement si la ñu daal di commencé génn ñëw bu ñu ñëwee tamit ñom ñëpp comme regroupe wu ñu àndi ñëw ñoom ñëpp dañuy daal di jël par exemple par groupe ñu jël ay taxi ñi xamante ni jot nañu egsi fii ñoom ñëpp la ñuy jàpp parce que dañuy génn si taxi rek commencé di euh, scander ay euh, euh, libéré ñi xamante ni ñoom la ñu jot a jàpp maanaam ñoom Cheikh Omar Diagne Abdou Karim Xhaax wala Macky Sall dictateur ce sont les termes ñi xamante ni ñoom jot nañ ko yëkkati si fi xamante ne mooy place de l'indépendance mais du mat ay cinq yooyu noonu policiers comme ginnaaw ñoom ñoo fi ëpp Euh, ñu daal euh, arrêté euh, ñoo xamante ni ñoom ñooy manifestant yi pour exiger Mohamed xamante la libération ñu ñuy qualifié lii de politique ñeneen ñi nga arrêté nañu leen depuis le 17 juin manifestation du 17 juin boo xamante ni na Euh, si euh, place de l'obélisque euh, a ñeneen ñi ñu arrêté leen si mbirum force spéciale ñeneen ñi ñu arrêté leen ginnaaw faatum kii di Aliou Badara Ndaw moom nekkoon imam au niveau de Kaolack mooy war a en l'occurrence ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Omar Diagne ak

ak euh, yenn yenn ñi bëri na dinaa xool bu ba sama liste bi euh, pour ma bañ a leen fàtte mais ki xamante ni nag kooku pratiquement mu ñu ngi koy jàpp si ginnaaw benn bu mu partagé woon moo am ànd agréé mooy euh, Ousmane Diagne Ousmane Diagne moom mooy nekk coordonnateur bi nga xamante ni mooy le mouvement mafia kàcci kàcci ñoo xamante ni ñoom seen slogan mooy lu nakari Macky Sall neex ñu ñoom dañ ko arrêté woon si mbirum. Euh, pirate de unes de journaux moom ki xamante ak ki xamante ni euh, daf si boolem na ak euh, suñu beneen confrère xamante ni ñun man jot na koo xam personnellement mais ki xamante ni moom mooy Papito Kara Papito Kara tamit moom.

Euh, war a dem foo ni moom mooy justement si rond point bi dañu tere pour nga pour nga jàll sauf que xamante ni gis ngeen ne ñoom nit ñuy tàllal seen loxo di tere ni ñi pour ñu jàll ñoom policiers yi noonu ñu ngi fi voilà. nit ki voilà seen intervention boobu ak euh, nit kooku. voilà joon nañu leen euh, euh, kii euh, ngeen xamee ko noonu ñu ngi fii en direct place de l'indépendance ginnaaw manifestation boo xamante ni kii di collectif pour la libération des détenus politiques ñoom ñu woote woon seen conférence de presse démb ñu ne fii dinañ fi def pour ñu libérer ñu xamante ni ñoom ñooy les détenus politiques ginnaaw seen déclaration boobu tey fajar depuis tôt le matin la xamante ni moom mooy euh, les forces de l'ordre ont euh, ceinturé fi tout au long du rond-point de place de l'indépendance nous manifestant yi jotu en masse nous ont été ensemble ils ont été en compte goutte mais groupe bu egsi rek commencé di euh, maquis dictateur policier de de leen Euh, ba affrontement boobu noonu mujj nañoo bu max suñu benn consoeur boo xamante ni moom cadre la si euh, cadre la si Mbour euh, News suñu daal ko bu max ba mu daanu def na tëdd na ay minutes laata mu retrouver sa conscience kon ñoom policier ñoo doon def loolu pratiquement maanaam tout li nga xamante ni moom mooy seen

ñu interdit la pour nga jàll moom police gis ngeen kii borom yëre bi bu ñu waxtaan ak ñoom ndax nañ ko bàyyi pour mu pour mu jàll donc euh, situation bi chers internautes euh, chaîne Kéwoulo TV euh, yéen ñi ñuy doon suivre ñu fàttali leen loolu comme collectif nga xam ne collectif boo xamante ni moom la ñu wax collectif pour la libération des détenus politiques collectif pour la libération des détenus politiques voilà ñoom ñooy def seen point de presse gis ngeen policiers yi voilà ñi tere ni ñi pour ñu jàll filmé na euh, parti boobu pour nit ñi gis voilà ñi tere nañ sa ñoo xamante ni ñoom ñooy dox si seen soxla dañuy mujj obligé di retourner léegi mun nañoo topp euh, kilifa jëndaat dinañ ko bàyyi mu jàll wala jëlal policier bi lu mu doon waxee ak moom gis nga ñu ne ko noonoo ñu noonu moom faalewu leen sax d'ailleurs kon mu nga continuer xalaat arrêt voilà benn policier bi jàpp na ko voilà ñu euh ñu euh lan lañu nara nar lañu lan la finalement mom insisté na ba ñu baye ko mu dem yonam donc euh, circulation bi ñoom donte euh, trouble à l'ordre public la ñu doon bañ mais finalement dañuy défé restreint mooy moy do xamanteni la liberté des voies et bien de citoyens comme lu ñu nepp euh, mu doon nemmeeku fa xamante ni moom le jeudi 3 novembre ci di jëmoon ci convocation qui di Ousmane Sonko la situation elle est là, ici à la place de l'indépendance, pour le city du collectif pour la libération des détenus politiques. Tout le monde, nous avons nous brutalisé fourgonnette commissariat central la situation elle est là actuellement un peu indescriptible parce que nous les journalistes daanu ba xëm pratiquement loolu brutalité boobu noonu tey nemmeeku nañu loolu yi xamante ni moom mooy du côté des forces de l'ordre la situation elle est là avec un langage aussi très arrogant comme il faut ñu waxee ko noonu parce que lu ñu jot waa am ñu loolu la loolu lañ ko mën a euh, waxee un langage très arrogant dégagé ici euh, comme boo xamante ni bu donte ñu ne du ñu tere journaliste ñu def seen liggéey mais jamono ji foo xamante ni foofu la ñu taxawee euh, mënuñoo jël fi nga ni moom xew côté boo xamante ni moom euh, rond point bi juste à côté de la pharmacie euh, du rond point enclavé par rapport ak zone boo xamante ni la manifestant di jógee maanaam côté rue bi manifestant di taxi di di côté ko côté banque agricole avant ñuy wàcc si euh, euh, si diggante banque agricole ak euh, ministère des immeuble ministère des affaires étrangères ñi daal di daw directement fii muy rond point bi ñoom ñëpp ñu arrêté leen yóbbu ñi leen jamono ji nag pour le moment gisaguñu yenn manifestants yi mais policiers yi moom ñoom ñu ngi maintenir seen dispositif pousse nañ yi ba ñu sori tere nañ ñoo xamante ni dañuy jógee côté bi pour ñu dem vers rond point dañu leen di tere mais bu ñu ñëwee naka danañ la bàyyi ñu jaar mais pour nga dëppaat loolu moo nekk coow li alors la situation elle est là jamono ji policiers nag ñi en tenue ak en civil Nous xam fi mais la situation est indescriptible pour le moment pour ñi nous sommes les membres du collectif pour la libération des détenus politiques le 5 octobre 2022 ici, Palace de l'Indépendance